amal li nga xam ne mooy ay nee na tamit lépp xam ne jëm na ci ay moyens de sécurité njiitu réew mi nee ko daal di defal nga xam ne ñooy takk der yi mu mat sëkk njiitu président Macky Sall ci journal bi daat wax ne jamono ji nga xamante ni nag maanaam njëg yi dafa yokk ba maara détal yi bi nga xam ne moo am ci àdduna bi Macky Sall nee na nga xam ne mooy pexe ji mooy ñu jéem a am alimentaire maanaam li xam ne moom la ñu lekk ñu bañ koo jéggaani waaye nag bàyyee ko fii ci réew mi lekkee ko mi moom njiitu réew mi nee na def na ay jéego yu am solo ci lu jëm ci wàññu dund gi ndax nee na lu jëm ci wàllum wàllum ceeb bi wàññi na ko lu jëm ci wàllum diwlin gi ak suukar si wàññi na ko kaay gi di réew mi ko di jee nee na ci fête de l'indépendance bi daat nañuy gracier lu toll si juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ñi nga xam ne ñooy ay na yi ñu tuumaloon a ci lu jëm ci ñaari taalibey Cheikh Béthio yi ñu reyoon ca Madinatu Salaam taalibey Cheikh Béthio Thioune yooyu nga xam ne tëju nañ leen sa kaso ba daat nañ leen di gracier lu garaaw a garaaw lu tey waar loo ca chambre criminelle bu Ndakaaru la ñu ko doon attee sa diwaanu Tiwaawoon pël mi xewee dafa am benn waay boo xam ne ko joxar bi baaraamu tuuma ne ab sàcc la ndax dafa xëyoon suba cuuye jël jaaseem ak gis benn oto boo xam ne dafa gaare mu daal di li nga xam ne mooy oto bi ngir nag bëggoon a jël li nga xam ne moo nekk ca biir waaye nag ca noonee borom oto bi nekk ab gendarme la ci la génne yor fetal moom tima waa ji nga xam ne ab sàcc la jaasi la yoroon daal di koy dóor ki nga xam ne moom la yoroon journal bi nee na loolee la doon at ca tribunalum Dakar waaye nag ki nga xam ne moom la ñuy joxar bi baaraamu tuuma ne la yoroon li mooy jaasi kookee nag nee nañu nañu ko tëj xam moom la ñu dëgmal la lépp di leer yéen a gi di réew mi ko di cee nee na Ahmed Aïdara daan nay tekki ndombal tànkam fi nga xam ne mooy des médias daan nay démissionné bi nee na ndax nag du Bougane Gueye Dany moom si ma maanaam moo bàyyi Ahmed Aïdara ñi nga xam ne faatu nañu leen ci àllu Boffa Bayotte bi ca Casamance te ñu toll ci fukk ak ñeent ci atum 2018 ñi nga xam ne ñoom la ñu njort ne ñoo ci laale ñoo ngi leen di atte ci chambre criminelle bu Ziguinchor ni ki démb procureur nee na fukk ak ndax mbir mi dañu see laale ba ci bopp ak baat yéen gi di Rewmi Quotidien nee na fukk ak benn yi nga xam ne procureur nee na nañu leen tëj li des ci seenug dund ñooñu nag li ñu leen di toppee mooy lu jëm ci wàllum association de malfaiteur maanaam lëngoo di def ay ñaawteef ak lu jëm ci wàllum assassinat yéen gi ne nag ki nga xam ne mooy César Atoute Badiane kooke na ab mandat international loole la procureur bi sàkku ñu daal di koy lancé kaay gi di Rewmi Quotidien xëy duñu kaas bu nekk ci Ouest Foire boo xam ne Samba bu yi dañu koo dajji ginnaaw nag bi ñu fa jëlee fetal teg ko ci ki nga xam ne moom la ñu fa fekkoon yéene kaay gi nee na kenn ki nee na nag dafa bëggoon a ngénte ñetteelu doomam moo tax mu def googale ñawte fa procureur nee na ñu tëj ko lu toll ci fukki at ak juróoma ñaar fukki fànn ci weeru avril wi nga xam ne moom la ñu dëg ma la la ñu leen di wax lu leer tribunalum Ndakaaru ni ki démb bu toj na tribunal bu yëngu na ndax jëkkër ak jabar ñoo am ay jafe-jafe jëkkër ji jël ko yóbbu ko fa mbaxana doone benn journal bi di réew mi na mbir mi ni mu demee ki nga xam ne mooy jëkkër ji moo jël lu toll ci dix-neuf millions daal di koy dénk ki nga xam ne mooy jabar ji nee ma may mun a soow ba mu demee ba nga xam ne soxla ne xaalis bi moom jëkkër ji laaj ko xaalis bi mu daal di lànk ba tëdd sa naaj wa journal bi nee na si la ko daal di porte plainte waaye na ki nga xam ne mooy jabar ji ca tribunalum Ndakaaru bi ñu ko laajee ci lu jëm ci dix-neuf millions yi nee na abu lu ma ko dénk ba ko te xaalis bi nga xam ne moom lay wax li ko taxoon a jokko mooy tabaski ak kër ndax sama jëkkër ji Samba Alaar la dafay jëlu xaalis maanaam di ko pasar pasare te génn kër goo xam ne moom la ñu dëkk ak sunu njaboota yéen fukki fan ak ñeent ci weeru avril la lépp di leer yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy dañu xibaar naan ñu Cheikh Omar Diagne jamono ji ma ngi ci guddi gu bët sëddiku la yóbbu nañu ko ndungu si na guddeem gu njëkk fanaan na ko ci fi nga xam ne mooy kasu bu rëbës maître Djibril Waar moo ko porte plainte di réew mi quotidien xëy séq waxtaan wu yaatu ak waykat bii di Mami Mbaye Mami Mbaye mi nga xam ne ci groupe Alif la nekkoon groupe boobee nag duñu ko mujjee tas lan moo tax ñu daal di koy tas moom Mami Mbaye daan na ciy dellu wax ne parcelle fala wax na nag lan taxoon mu daal di gëj ci scène ci